mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi euh, ci réew mi ak ci bitim réew taal leer ak jamono di ko leerloo muy rajo télévision bu wal fajri euh, yéen ñëpp rek maa ngi leen di boole nuyoo bi ñu yàlla boole ca juróomi baatam ya ngeen miinoon ñi miin ko di juróomi baat yoo xam ne jamono mënul koo yàggee ba xewil ko bari luñ koy joxante mënul koo bëree ba sàppil ko ma tibbee ko ci sama xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa Ah, di del ci kartanal yalla a ah, fasiyene sof ak yaw lima soso nak yaw ci waxtan yi passé ci lepp rek waxon na la aju ci walu sey ak njariñ yu reey kamne nga xamne lambo nako aju ci walu sey ci mbóot yu màgg yi nga xam ne dëxëñ na ko looloo waral suñu taxawaay bi ci wàllu sëy yàgg lool ngir yëg giñ yëg ne bu sëy baaxee la ca des yépp baax bu sëy yàqoo lépp lu ca aju lu cay ci fondation booba tamit dafay mujj yàqu su ko defee waxoon naa la démb rekk ndeysaan daal dafa mel ni ci ñaar la commencé ba tax na alquran ba muy lim dafa ne denc leen ñaar moo tax denc ndoor ñaar benn nag nga denc nga denc ndoor ñaar ya bu ko sa doole mandee wala boo demee ba ci kanam rekk nga dolliwaat ca xam naa dolliwaat googu nag jigéen ñu bari ñu may déglu neexut leen ndax ñoom bu ñu sañoon kenn rekk niñ koy waxe maag moom rekk ngay dégg waaye waxoon naa la ko ne benn soxna fii rek la xew waaye boo demee fee ca aljana benn soxna xaju e xewut fa moom kay ñaar rekk jëm kaw ba kenn ki gën a néew soxna ci jana lu mu néew néew dana làq lu ëpp ay junne junne ci soxna ñeenti junne jëm kaw lay am ka gën a néewle ka gën a bërile moom mën naa dem ba ci ay million ci soxna te amul joxe dépense amul fiirante waxuma la amul sotti la ndox mu tàng amul soode fa sa jëkkër foofa daal lépp la wër te dara warut la foofa la xewe moo tax kon daal lislaam ba muy lim ñaar la tàmbalee moo tax mu ne fankihu ma taaba lakum mina nisaayi wane na ñaari soxna ku ko xas traversé sa kër taxaw na waaye waxoon naa la comme montagne la bu naqaree traversé bëgg koo traversé tàmbaliwaat à zéro xaj na ca bëgg koo traversé sa genn wàll gi dem genn wàll ga des fa xaj na ci te mooy nga ñàkk kenn ci ñoom ñaar commencé waat à zéro mooy nga bokk ñàkk leen ñoom ñaar yooyu yëpp maanaam xaj na ca waaye tamit ñi ñàkk la yow tamit xaj na ca kon maanaam daal montagne la wala muy daan boo xam ne bu naqaree traversé la waaye boo ko xasee traversé rek nag ñetteel ba moom du problème su ko defee tamit ñeenteel ba ñëw gën a yombati waaye jafe-jafe ga yépp daal mi ngi ci ñaari soxna moo taxoon xaali ma jaxate kala waxoon naa la ko ba mu fekkee moor xuja kumba di ko seet si ndeysaanam fekk ko benn soxna ba ña ngay xolli gerte mu di ko tooñ tooñu nu boroom xam-xam ne ko daal góor ak benn soxna daal ci jéng dong la nekk ku ñu jëng nag sa dox du gaaw sa doxin du rafet zu zawjatin wahidatin fii këb fii kubuli mu ne ko nag kay tamit delloo ko tooñ ya ne ko tamit nag boroom ñaari soxna foo ko fekk ci tuuma lay dund aawa baa ngay tuumal ba ca moom ah, ñaareel baa ngay tuumal aawa ba ca moom lu ma am jox ko ko lu mu xam wax ko ko soo yoree ñaari kër foo ayee fële bu ñu la laajee aawa ba mu ne ma nga ca àll ba nga jël laaj séet ba fekk ma nga fële mu ne ma nga ca àll ba moom daal dëkkatoo fenn te terewul yaa ngeeg ñaari kër de waaye kenn dëkkaletul la fa. kon lu doy doy waar la fekk booba Mor Xooja Kumba booba benn soxna la ame góor gu baax la woon ndeysaanam ndeysaanam ndey bu nekkoon boroom xam-xam fanam guddul nag waaye fanam gudd ndax yàgg fi amut solo li ëpp solo mooy yàggee fi yàggut fi de ci dund waaye yàggee na fi ci yiwu rëy yi mu fi def téere yi mu fi taalif boroom xam-xam yim fi forme ak lu baax lu rëy lim fi jëmbat nekkoon jaamukatab yàlla xaar ba heure timis rek ndeysaan ñi war a taxawal waxtu wi rek jaan matt ko ñenn ñeneen ne nañ lañ lugg mu ne nañ julli kenn du mag ñi mu ne leen muxtaaram timis dafa gàtt nañ julli buñ paree door lugg jaan ji su ko defee mu taxawal julli ga julli bi ñu sëlmalee ñu commencé lu guma ndeke jaan ja yéeg na foofa la yàlla jëlee bakkanam ba kon moom shahid la ndax shahid shahidul mihrab la ki ma nga mihrab nekk shahid ca mihrab ba bu ko defee kon góor gu baax la woon ndeysaanam xaali nag doon ko tooñ di xaali ma jaxate kala moom borom ñaari soxna la benn soxnaam ba mooy saasuma ci soxnaam soxnaam la moom lay wax ca xasalam ba ne na al jismu an saasuma wamal xalbu naa iya ndeysaanam loolu ma ngi koy wax ca ndeysaanam xasalam ba sama jëmm ji de sorina sama soxna su baax sële di saasuma waaye sama xol bi moom soriwut moo tax mu ne wala laamiyan anha wala huwa saaliya fa aynaani tawran tajmudaani taaratan tasuxaani tawakkufan ko defee kon loolu la doon xaali doon wax xaali moomu jar naa taxaw jangalem arab mi ñi wax bu doon garab xali moy ren ya xali ma jaxata kala moy dat ba li ki dess yépp nak dafa bankaso ci dat boba moy ki jangal mag ñi ñu bari mo len jangal nekkon hakim bu yalla mayor ci ñor yàlla may ko ci ñaw ndeysaanam ak ñawam yeggoon na ci atekat la woon ci ak àtteem nag amoon ñaar ñu ñu tuumaaloon ak sàcc comme sàcc jur lu fi yàgg la ñu tuumaal leen sàcc jur kenn ku nekk di ko jiiñ sa moroom ñoom ñaar yow mi la yow mi la nangam ak nangam ta mbir ma leeru khalid kamu kan la ci bu xamone kan la ci ci sasa mu tëj koka baye ka ca dess mu boole len ñom ñaar di len enquête mbir ma lol ni rok li xew ki jamono ji léeg-léeg ñi tumal nit ne dañ ko lu dafa luubal alali askan wi ñi xey woko dik di di ko enquête juroom benni waxtu ñi def juroom ñetti waxtu mu xëy moom tamit di enquête ñoom ñaar suba ba ngoon ñu sonn lool mu jël benn xale boo xam ne fendeeku na tëj ko ci benn gaal ci biir gaal googa mu tëj ko dugal ko ci ab néeg ci biir néeg booba nag mu dugal fa ñaar ñii nga xam ne dañ leen a tuumaal dañoo sàcc jur kenn ku nekk di ko jiiñ sa moroom ba mu leen fa tëjee nag pour nag wan xale bi ne ko déglul ma li ñuy war a waxtaanee ci guddi gi te ñoom yëguñ ne yaa ngi fi boo xëyee nga wax ma ko ndeysaanam ba ñu duggee ba ci biir ñu tëj leen ca néeg ba rek ñoom ñaar ñi commencé waxtaan ñee kenn ka ne wax moromam ma ne ko ay gàtt bi ñi sàcc wax dëgg yàlla nag coono bi jarul ko coono bi ñu teg ñu wax dëgg yàlla jarutoon ñi sàcc gàtt ba maag yow kuti nañu seer de mayen mbokk ma ko wax nga deug de pourtant biñ ko jaayé danaka amuñ ci dara bañ séddooyee amuñ ci dara tay gisal tay choono bim ñu jural ñom ñaar di waxanté lola xalé bi ndeke degg na ko bi bër sété rek xalé di len ubbi rek ubbi waale xalé bi juk taxaw seen kanam ñi mujj yéemu xam ne ñoom lu mujj nañ luus mu laaj xalé ba lu waxtané mu nettali ko ci lola xali ne len dem len ngeen fay gattu jambour bi wala ma tëj len ci kasso gi ñi mujj fay ko loolu lépp xikmatu la duhul lu ñu jàng ci téere euh, beneen bi xaalima jaxate kala ak euh, ñor ga ndeysaanam ñaar dañoo fasante woon am njaay ci benn ron garab ba ñu bokkee wax fasante njaay ma fasante ko ba pare kenn ka xor génn ca ne ko déeréet maa ko moom man rek la kii ne ko déeréet jaayoon na ma ko wax ja bëri ñi kalaame leen ñëw ñëw ci xaadi ba ñu ñëwee xaadi enquête leen lu yàgga yàgga yàgg mu jigi mu jël kenn ka tëj ko waaye fekk na tamit nag kenn ka mu ne ko yow mii nga wax ne ceroon genn garab ngeen doon fasante kóllëre googu ak njaay mi demal ba ca ron garab ga nga daggal ma ca xob ya nga indil ma ca waaja xaali téye ko mu yendu fa lekkut xiif ñu toog ba si yàgg rek mu leen indi leen bool bi mu nekk boolab laax mu tiim ko ba dara des lu dul sef xaali génn ne waaw ana ki ma yónni woon ca garab ga pour mu indil ma ca xob ya ñëwagul ba léegi waaja moom fàtte ne ko xaali foofa garab ga dafa sori de mu ne ko ah comme yow yaay nangu sore garab ga nangu nga ne kon garab ga am na kon njaay ma amoon na fasante ga am na foofu la xaali jaare ba jàpp ko kon xaali ku ñor la woon tabaarakallaahu ku yàlla mayoon la ci wàllu shi'ru waaye ndeysaan lu ëpp ci ay wayam dafa réer lu ci bëri maanaam dafa sànku ndeysaanam xasida bi ma doon wax mu ko doon taggee Cheikh Omarul Fuuti yi am ci xasida boo xam ne mu ngi ko taggee Seydi Ahmed Tijani bale mu koy taggee ca maanaam silsilaam bi fi mu jaar an sàmba jaadana an ab an abdin udifa ila ba xasida ba jeex bii nag ndeysaanam mi ngi ko doon taggee Cheikh Omarul Fuuti yi ci na al jismu an saasuma wamal qalbu na iya noonu la ko doon jëlee ba xasida ba jeex kooku mooy xaalima jaxate kala kon moom ñaari soxna la amoon euh, moom tamit comme niru woon yonentu yàlla noox ñaari soxna la amoon euh, niru woon tabaarakallaahu yonentu yàlla ñaari soxna la amoon euh, niru woon tabaarakallaahu seydi ahmad tijaani ñaari soxna la amoon mooy mubaarakatu ak mabrukatu moo doon ay soxnaam su ko defee kon nag yow kilifa googu di maye soxna waxoon naa la ne bul may góor ak ñeenti soxna ko am ñeenti jabar kenn du ko mayeti soxna jabar ci ñeent la mas naa wasulaa sa waru rubaa kenn du ko paase ci ñoo xam ne ni ay góor lañ soo mënul amee ñaar mënoo am ñett waxuma ñeent sa doole mayewut la ko dellul ci benn kon wane ne benn soxna daal loro lor moo koy tax a jug moo tax alquran fa in xiftum alla taadilu fa waahida su ko defee kon nag comme da ngaa nag mën a nga yem ci benn mënoo ko physiquement mënoo ko moralement mënoo ko ki tuuti xaalis ma kon xemal ci benn waaye ñeenti soxna duñ ko ëppal ku la ñaan lu ëpp ñeenteeli soxna lum rëy rëy rëy daraja lum beri beri bari alal lu askanam wa reey reey bul ko ko may liko moy da ngay am bakar bu reey reey bokku ci bakar yu mag ya ñenti soxna duñ ko passé ya. motax ghaylanu thaqafi be tubé ci diina ji yonentu bi laj ko ñaata soxna mu ne ko fukk yonentu bi ne ko demal nga tekkali ko ya ta nga dessé ñent ñaa kon loolu lay tekki ne kon ñeent rek la lislaam maye moo tax imaamu shafii yu dafa daan wax ne sunna moo tegtale ne daal eh, ñeenti soxna lañ war a ci sunna soosu mooy xaylaanu saqafi yu ci àtte boobu nga xam ne maanaam wax na ko xam naa danaa ñëw ak yow eh, ci yonantu beeg sallallahu alayhi wa moom yàlla mayoon na ko mu amoon Euh, fukki soxna ak benn waaye moom lañ ko may de waaye fukki soxna yooyu ak benn moom dañ koo limité ci quantité dañ koo limité ci qualité ñun nag dañoo limité ci quantité quantité ku dul yonantu bokk ci xeetam mënuloo passé quantité ñeent waaye yow ëpp na ñeent ndax ñeent ñooña bo ca fasé won bu la andi hat kenen muy ñent ba tay rek bo fasé won ñaar hat yenen ñaar ba tay muy ñent ba tay rek kon yow ci bir essence bi nga xamné ne koy essence bir soxna ya yalla yemale ci digënté sey sa digënté ak ya, ñoom man nga dem ba am lu ëpp ñaar fukk man nga dem ba am fukk ak juroom man nga dem ba am fukk tay bari nañu may déglu ñoo xamné liñ leen wax alxayri ëpp na fanwer yool lola nag nag su fekkee ne nag da ngaa nekk góor goo xam ne góor jigéen goo xam te jàllal bi ko fase ko takkaat keneen yàlla rëbb na la yonentu wax na ko laana allahu yàlla rëbb na góor ñi nga xam ne ku ñu xam rek fase la tàppaas la fase la essence la takkaat keneen indi fa loola tamit nag baaxut góor gu baax du ko def bëri soxna yu dul jeex tey boo amee ñett ba si yàgg nga jël keneen demaat ba si kanam nga am ñeent fase indiwaat keneen dugalaat fële génneewaat fële ba mel ni da ngaa yore sa bul de essence nam la neexee wala mu mel ni xale boobu nekk ca babi ba léeg-léeg mu dugal bi génnee bale loolu tamit sharia du ko bëggee ci noonu nga bëggee ko ci sa bakkan bi kon dama wax ne yow liñ la may boo ko seetee ci genn wàll gi moo ëpp liñ may yonantu bi dañ laa limité ne laal bul passé ñeent waaye mënoon nga am benn ba ci kanam nga amaat beneen am ba si yàgg am keneen ku ca wàññeeku nga takkaat yow daal l'essentiel bul passé ñeent rek kon man ngaa dem ba gën a ba dégg lu ëpp fanweeri alxayr loolu yonent bi sañu ko moo tax kon moom ñun dañu limité ci quantité moom nag dañ ko limité ci qualité qualité ba mooy dañ ne ko sa soxna yii Nyom nga sañ a yor amuloo droit di ci bàyyi kenn di jëlaat keneen amuloo droit di jëlaat keneen di ko ca dolli ci ñooñu rek nga mën hen kon moom dañ ko limité ca wàll woowa mu am côté bo xam ne moo ñu fa ëppalee am ci côté bo xam ne ko fa ëppalee su ko defee nag kon euh, yonantoo ak juróom-ñeenti soxna ya maam alaaji Malick wax na ko aswaajuhu ummuhaatul muminina xiba mu ne limi soxnaa yonentu ba lim nañ ko mu nekk xiba xiba nag mooy fukk ak benn ndax xaa juróom-ñett la baa ñaar la alif ku ko xëcc benn la maam xalifa ne udda aswaaju taaha ayun walakin ay fadlin xawathu tilka nisaau mu ne lim nañ soxnaa yonent bi waaye bañ ko seetee fukk la ak benn muy ayu boo jëlee ayu hamsa gi benn la yaa googu fukk la muy fukk ak benn loolu la amoon ci soxna waaye nag ñaar euh, fukki soxna yépp nag ak benn du nañoo fekkante am na ci koo xam ne moom kenn rek rek rek moom la yonent bi denc ba mu xëy sàngoo suuf moom daal mosta am wujji kooka mooy sayyidatuna Khadija bi yonentou bi tak nyar ñaar fukki hat ak juroom la yonentou bi amon khadijatu am ñeen fukki hat kon deke tak kula mag dara nehu ci waye bum la mag bam mu nak genn gi kon dootul sa nawle su ko kon nak ñaar fukki hat ak juroom la yonentou bi am tak soxna so xamne ne am na ñeen fukki hat boole kok amoon ñaari jëkkër ñaari jëkkër ya moy hatiq beneen jëkkër ba mooy hind ñoom ñaar ñi le ñépp dañoo génn génn nañ àdduna yonantu bi door a sànni buum xadijatu kon yonentu gën a dëgër fit ñépp dama ne góor ñu bari duñ takk jigéen gu jëkkëram génn àdduna waxuma la jigéen goo xam ne nag ñaari jëkkëram a génn àdduna kook moom góor ñu bari duñ ca dugg waaye moom mu ñëw mabbu aada jooja ne takk ku ku jëkkëram dee taxuta dee takk ku jëkkëram ku ku jëkkëram deewutoon fase ko terewuta dee dee daal ci loxol yàlla ne waaye am na ñoo xam ne daal dañoo foo ku jege ku dee rek day waral dee ba loolu dal na góoru génn ilimaanu siise siise dafa takkoon benn soxna soxna sa nag ndeysaan xëcc ci benn bis ubbi armoire ba rek lepp li ci ëpp di mbaxana mbaxana yu bari yu rasalé ransale mu ne ko sa mbaxana yi bari na di mu ne ko mbaxana yi mbaxana yi souvenir la dama yoré woon kian kenn ku ci nek bala nga dem may ma mbaxana yalla dogal na sonu na am ñeenti jëkkër mo tolloog ñeenti mbaxana yi ñom ñepp dañu genn aduna ba ko waxé rek ilimanu sisi sisi sa ko mbaxana ma ne ko buñ la laajee nel juróomeeli mbaxana mi dafa daw de waaye deexul waaye nag ñeenti mbaxana ya ñoo dee seeni borom waaye man daw naa sànni ko mbaxana ma daw moom moom ba bis ni ki tey booba la gëj a dellu si su ko defee kon nag dafa am ñoo xam dañoo ragal ku dee rek dañoo ragal jege ku dee dañoo ragal jege ci taq ku dee waxuñ ca dara yonentu bi fekk jigéen goo xam ne na ñaari jëkkër mu sànni ko buum am ñaar fukki at ak juróom moom mu am ñeen fukki at léegi tamit nag ñeen fukki at yooya boo ca dolliwaatee yeneen ñaar fukki at ak ñeent moom mu nekk juróom benn fukki at ak ñeent bay dugg euh, juróom benn fukki at ak juróom foofa la xadijatu génne àdduna ba muy génn àdduna daal ñeen fukki at ak juróom benn la am boo jëlee mu tollook diine boo jëlee baatab diine nga siifur ko lam la jox xadijatu ba muy yóbbu ba muy dem àllaaxira at yooyu la yóbbu woon diine nag nun gi juróom fukk la yaa googu fukk la del googu ñeent la mu jox la juróom benn fukki at ak ñeent ak ñeent mooy 64 ans moom la xadijatu yóbbu xale àllaaxira loolu mi ngi ci miraatu safa bu maam xalifa Ñas noonu la ko indee ci baatab diine ba ñaareel bi euh, maanaam booba yonent bi mi ngi tolloog ci atam juróom fukki at yu manqué ay weer moom daal juróom fukki at yu manqué ay weer loola la am maanaam xadijatu génn àdduna yóbbu juróom benn fukki at ak ñeent àllaaxira yu tegi weer yonent bi am ci dundam ñeent fukki at ak juróom ñeent yu teg ay weer juróom fukki at yi fekk ay weer a ca manqué mu toog ndeysaanam am na ci yenn soxna yoo xam ne seen mbaax ga seen yaatu ga fa ñu lay féetee sa xel du daj mukk ñaareel loolu moo dal yonantu bi ci xadijatu maanaam daal fi ko xadijatu féetee fees na bëtam ci lépp ba xel xelaatu ñaareel ba tax na ànd naag moom ñaar fukki at ak juróom presque amul ñaareel moom kenn kese moom tamit moom kenn kese euh, léegi nag keroog ba xadijatu génne àdduna rek ci at ma yonentu bi métti na at mu naqari la ba gis nga at ma sax dañ ko daan tuddee amal xusni xatam njàqare mi ndax at moomu ci la abu taalib génn àdduna at moomu abu taalib mii moo protésé woon yonentu bi ci xéeféer yi ba ñu ragal ko ndax yàlla da ko may ay doom yoo xam ne yëpp jàmbaar yi fàkku tëdd lañ te léegi-léegi nit ki ragal la lu mu la ragalee sa doom yi moom moo tax njaboot baax na de njaboot gu baax gu am fulla ku ko am ñu wet la xay abu taalib moom la amoon moo jur aliyu moo jur jaafar waaye timit ah moo jur tabaarakallaahu aqiil te dañoo ñëpp ay jàmbaar yi fàkk tëdd lañ mo protesté won yonentou bi ne ko lula neex hotel lu neex waxal chamo yo huma wala man day jorro sama loxo bi ci kian souf kenn du dal ki sa kaw yalla jele fi abu Talib muama ñu ne déet way mu jele fi khadijatu mi nga xamne moko ko protesté won ba taxoon ñi wek ko ki da ko protesté ba tax ñi ragal ko ki protesté ko tax ñi wek ko ndax khadijatu jigen la way jigen gu mat gor la moo daan tog buumu gatcha yi ku am soxla makka sa xel dak ko bo ñewé mu fajal la ko kuy dog buumu gatcha yi dekk ci quartier nak deug deug koka faw ñi la alaji bu saxo hakim la daana wax ne ku ñu ragal ak ku ñu weg ku ñu sekk nga ñongi te ku ñu ragal ki di abu talib ak ku ñu weg ki di sayyidatuna khadija ñom ñaar ñoo séqoon yonantu bi ba taxoon mu ñongi ñom ñaar ñi ñepp nak yàlla jëlee leen fi ci même xat mi yàlla jëlee leen fi ci même weer wi yàlla jëlee leen fi ci même semaine bi ci benn semaine bi ci la ñoom ñaar ñëpp génn àdduna maanaam Abu Taalib génn na àdduna ñu teg ci ñetti fan Xadijatu génn àdduna seen diggante ñetti fan dong moo fa moo fa dox suma lama ata suma lama ata salaasu layaalin maatat ummuna zahraa loolu kon yàlla bu lay defaral day mel ni ku lay yàqal yàlla bu la namee féetewoo képp ku doon wóotewoo ne moo la féete dafa la fi da ko fiy jëlee moo tax ñoom ñaar ñëpp yàlla jëlee leen fii ci même xat yàlla jëlee leen fii ci même weer yàlla jëlee leen fii ci même maanaam semaine bi moo tax benn xat boo ci ñàkkee sa jabar ñàkk ci sa baay muñ ko yonent bi benn xat mi ñàkk na ci baayam ñàkk ci jabaram Takam xam nga ñaar ñi ku leen ñak deug deug ko ñak mën ko muñati ben xat mi nga ñak ci sa bay bi alal bi ko men xat mi nga ñak ci sa aawo bo xamne ne xutaloo ko woon sax wu jingirat mbax ga ngir ak yaatu ga ngir ak famu la fete hon tabarakallah lolu mo waral ñom ñaar ñi biñu genné ci même admi rek ci la yonentou bi tak ndor ñaari soxna ci même admi rek ci la gaaw tak ñaari soxna ñaari soxna ya mooy naa sawdatu ak saydatuna aïchatu ñoom ñaar takk ga dafa jege ba ulamaawu siire yi ba tey may wax ak yow xamuñ ñoom ñaar kan moo ca jiitu ba mujj gi ñi ngi rafete rafetalee ne sawdatu de moom la njëkk a takk waaye aïchatu moo njëkk a sëy si moo tax daal lu ci mun di am daal ñoom ñaar ci même at mi dañ la leen takkandoor ba dañoo jege ba xamuñ kan la ci njëkk a takk ñii ne sawdatu la njëkk a takk waaye aïchatu moom mu njëkk a sëy si moo tax ma la doon wax ne nag fukki soxna yi ak benn fekkantewuñu wuñu xadijatu moom kenn rekk fekkut kenn kenn fekkut ko gannaaw si gi nag ci la door a jël ñaari soxna ndoor sawdatu ak aïchatu continué na nag ndeysaanam noona ba yàlla dogal mu am fukki soxna ak benn ñaari soxnañoo ñoo génn àdduna ci loxoom xadijatu génn na àdduna ci loxoom ba muy am juróom fukki at yu manqué ay weer xa yóbbuwaale ñeent fukki at juróom benn fukki at kon ak gën gudd fan yonent bi menn xat waaye tamit nag beneen soxna ba moom yàggut ci moom ummul masakini lañ koy tuddee moom ci boppam ñaari weer rek la xam ci yonent bi ba mu xamee ñaari weer ya génn àdduna su ko defee nag ba muy génn àdduna moom yonantu bi juróom-ñeenti soxna ñoom ñoo ko ténji juróom-ñeenti yooya tabaarakallaahu ulamaawu siira yi lim nañ leen ci téere yi boo demee ci xilaas dana la tuddal juróom-ñeenti soxna yooyu nga xam ne ñoo ténji muhammad sallallahu alayhi wa sallama kon nag sëy ma wax la yow mii di kilifaak sëy bi bul ci maye sa doom bul maye sa doom ku dul waxoon naa la ko tubaab yi ñëw dañoo tuub wala muy tuub tuubu intérêt ne ko nañ la dugal néeg góor bul ci maye sa doom ji bul may sa doom ji tubaab yi ñëw naan euh, kitaab yu lañ wala ñuy ay na moo xam wala ñuy ay mushrik ku mu ci ñoom duñu leen may jabar koo xam ne tamit bëgg sa doom ji dong moo ko tax a tuub doo ko may sa doom ji boo ko mayee da nga cay am bàkkaar ndax sëy nekkut fa mooy yàlla dong moo fa nekk intérêt bu mu la mën di dig bi la yàlla jox ko xëpp doole fuuf te mooy xéewal ak doom rek kenn mënula laa may doom man ngaa am milliards yu dul jeex te yàllaa koy joxe lu tax nga am doom te loo am ci milliard lu mu bëri bëri soo ñàkkee doom da ngay yëg ne ñàkk nga lu rëy rëy ba jaraloon na jaay sa bien yépp yàlla jox la doom loola dana la ko jaral kon yàlla mi la may doom yoroon la ba sa doom gi juddoogul yoroon la ci sa biiru yaay yoroon la te muy ko la yor sa doom ji bu mu màgg rek tubaab bëgg ko digla yóbbu la bitim réew muy màkka wala yóbbu sa doom ji bitim réew wala jëndal la kër ba tax nga di ko remplacer ak yàlla soo ko defee yàlla fudd sa ndigg kooku ca maanaam amul amul ca amul amul werante kon loolu bul ko def bul may sa doom yi ñii naan tuub naan ñu solal ko kaftan mu jugur jugureeg fu ne muy dugg di nuyoo naan ko waxal lii kii mooy tàntaam ak kii mooy dangam sëy nekkut fa su ko defee timit bul maye sa doom ci sa yëb contrat waxoon naa la ko bul maye sa doom ci sa yëb baara bul maye sa doom koo xam ne bi nga koy may soxna am na lu ëpp ñeenti gor daganut moo tax ku lay ñaan soxna laaj ko ñaata soxna la am buñ la waxee lu tolloog lu lislaam maye nga man ko caa may bu la jikkoom doyee su fekkee ne nag lim bam am dafa paase li lislaam maye bu ko may sa soxna sa sa doom ji kon kilifa waxoon naa la ko moo jiitu ca sëy ya loola ma génnee loolu la ko ca euh, sa sëy kilifa yi tamit yàlla mi ngi leen dànkaafu ci euh, sa doom ji soo ko su gisee ko mu bëgg te ki mu bëgg nga xool ko jikom doy la mm, nangoo liggéeyam doy la waay waay bul ko gàllankoor may ko sa soxna si may ko sa doom ji ndax nag nag moom la yonent bi ne ida ataakum man tardawna diinahu wa xuluquhu fa zawijuhu riwaaya bi ne fa ankihu wa ila takun finnatun wa fasadun kabir man na caa am ta mooy ñi wéet ba mu mujj ëmbal ko nga am problème su ko defee kon nag jigéen gi daal sa doom ji bëgg na ko nga yëg ne mën na koo yore may ko ko euh, bu boobaa tamit maanaam même bu nekkul waa soo xam nekkul rasoo soo xam nekkul nawleem bëgg na te mënoo ko koo tere sooye boo may ko ko rek li ko may fa ñuy wéetee doo ko fekkee te ku dul ku dul sa nawle nga may ko sa doom bi moo gën a oyof ku dul sa nawle ëmbal sa doom bi te loolu tamit boo ko mayewut loolu lépp mën na caa juddoo moo tax alquran di wax ne yéen kilifa yi bu leen gàllankoor ñi ngeen xilif ci sëy yi moom la ne wa ida talaqtumu nisaa fa na balaghna ajalahunna fala tahduluhunna an yankihna azwaajahunna ida taraadaw baynahum bil maaruf kon yooyu yëpp jar na caa bàyyi xel boo ko ca gàllankoole rek lu nekk mën na caa juddoo lu ca bari tamit mën na caa xew te loolu mi ngi xew ci eh, ci famille yu bëri di leen yàq kon daal sa doom boo ko gisee mu ànd ak nit kum takkuut benn yoon ëpp na sax su boobaa laaj ko ndax da nga koo bëgg nga laaj koo ko ndax nangamam bu la doyee nga may ko ko bu la doyut te nga yëg ne tamit boo ko mayut sa doom ji du ko bàyyi moom tamit du ko bàyyi ndax fa ñuy wéetee doo ko fekkee may ko ko bàyyi bàyyi leen su ko defee àdduna dana ko yar kenn mënu ca dara bàyyi koog moom bu ñu sa yàggee rek àdduna yar leen waaye boo fi nekkee naan du sama waasoo du sama raasoo bokkuma ak moom nangam bokkuñ nangam loola nga di ko bañ ba mu xëy trompe ko nga am problème te wax naa la ku dul sa nawle nga may ko sa doom moo gën a xoyof ku ku dul sa nawle ñëw yàq sa askan wi trompe la kon yooyu jar naa bàyyi xel moo taxoon yonantu baa ngi wax sax ci kilifa yi di leen dànkaafu buñ gisee nañu maye moo tax kon loolu nañ ko ci bàyyi xel ci iza ataakum man tardawna diinahu wa xuluquhu euh, beneen bi mooy Euh, kilifa yooya nag maanaam mooy mi ngi nekk ci wàllu gaño gi buñ ne kilifa doom moo ci jiitu buñ ne kilifa baay moo ca tegu su ma ne doom nag mooy képp koo xam ne sa yaay da doon sëy yàlla dogal sëy ba tas mu am la ca nga nekk góor nekk ko am xel nekk ko mësoor walla sa baay mu génn àdduna fekk am na la ca mësoor nga am nga xel sa yaay mi bo amé ko ko bëgg yaw yaay ki gëna yilif taxaw pour man ko maye même ya ya ya yaa ya ci jitu sax manam bayam bi ko jur di sa mam bayam bi ko jur di sa mam yaw momu ya ko ci hëpp doole kon sa papa genn na aduna am na ko bëgg sa yaay maye ko ya ci hëpp doole bayam sa papa sa yaay doon na sëy yàlla na sey ba amna na la ca am ko ko bëgg may ko ko bu la jikkoom doyee mandoom doy la su boobaa nag kon jërëtul maanaam nga nga ngay xaar baayam ndax yaa ci ëpp doole baayam su boobaa tamit sa yaay am na koo xam ne wax na ne bëgg na ko xool nga ko doy na ko ko bu ko gàllankoor bàyyi ko mu dem sëy waaye léeg-léeg soxna yi. Euh, am koo xam ne bëgg nañ leen ñu war leen a sëy nga naan man de du fi nekk sama yaay kaw ñëw kii ñëw di ko denc ñëw ci kër geeg wala muy dem ak nangam ak nangam comme bëgg na ko bàyyi ko mu jaamu ci yàlla bul ko gàllankoor ci fala taadiloo fala taadilohunna an yankihna azwaajahunna yooyu yëpp tamit bokk na ci ñaareel bi kilifa yi wax naa la ki ci ëpp doole mooy doom gannaaw doom nag mooy bàyyi baay nag buñ ko waxee mooy sa maam yow moomu di doom ji su ko defee nag gannaaw loolu euh, doomi doom door a ñëw muy sëdd ya ci ngay ñëw tamit mbokk ci lay ñëw euh, ci lay ñëw bokk na ca maam bokk na ca baay tëx ya bokk na ca doomi baay tëx ak doomi maam ak doomi doom ak doomi mbokk demeet ku ci nag bu ñuy mayee dañuy jiital kam bokk ak ndey ak baay moo ëpp doole ka mu bokk ak bàyyi rek ca wàllu waawa kon daal kilifa yi nga xam ne ñoo mën a maye sëy yi ki ci jiitu mooy doom ci yaayam ñaareel bi euh, baay di xam ne moo jur soxna si gannaaw si gi mbokk ya buñ ne mbokk mooy koo bokk ak ndey ak baay wala ngeen bokk baay gannaaw si gi doomam seen do doomi doom door a ñëw nag maam maam nag buñ ko waxee ñett la wala ñaar ya mooy maam ji nga xam ne moo jur sa maanaam moo jur maanaam sa baay maam jooja mën naa maye waaye maam ji jur sa yaay kooku moom du donn sax moom tamit bokkul ca kilifa ya ca ruuxum yàlla bokk bàyyi tax ya door a ñëw suñ na bàyyi tax mooy koo bokk ak sa baay ndey ak baay wala ñu bokk baay door a ñëw seen doom nga nag door a ñëw doom yi bàyyi tax ak doom yi doomi doom ak demeet ka jiitu woon ku ne bu ñuy wàccee doomam ja mooy mooy jiituwaat gannaaw bi ñu demee ba jeexal rance bi ba pare su ko defee kon nag ñii ñooy kilifa yi ñoo mën a maye sëy yi wàllu meen ma bokkuñ ca kilifa ya wàllu meen mi su ma ko waxee koo xam ne eh, mbokk la ci wàllu yaay matul kilifa koo xam ne nijaay la mënta mayab jarbaatam matul kilifa ca wàllu wawa koo xam ne mbokkam sa baay tëx la mbokk bàyyi tëx la ci wàllu yaay moo ko ca boole bokkut ca bokk ya naka noonu maam ci wàllu yaay te mooy maam ji jur sa yaay kooka bokkut ca kilifa ya ca wàllu ruum la ndax maam jooja sax soo deewoon du la donn ca wàllu ruum ya la bokk ruxum ya ca la bokk su ko defee kon nag ñii ñooy kilifa ya wax naa la ko ñi nga xam ne tamit bokkuñ ca kilifa ya wax naa la ko kilifa yooya nag euh, ñoom bu ñu fi nexee ñooy mën a maye li ko moy sëy du mën a wér yonent bi wax na ne bépp sëy bu ñu takk ci lu duhun kilifa yàqu na moo tax mu ne ayuma mraatin nukkihat bi gayri idni waliyiha fa nikaahuha baatilun baatilun rawaahu imaamu ahmad wa abu daawuda mu ne kon bépp sëy bu ñu takk te amul kilifa yàqu na yàqu na yàqu na limal naa la kilifa ya alquran waxoon naa la ko ca kilifa ya ci fankihuhunna bi idni ahlihi na su ko defee nag xam naa ne kilifa yi dañoo ëppante tamit nag doole maanaam kilifa gi nga xam ne mooy moom la ñu tuddee baay ci doomam ji ñuy tuddee jànq sa doom ji jànq la mosta dugg ci néegab sëy yow baay ji ni nga ko xilifee dafa rëy xilif koo kilifteef ga yegg na ci man nga koo may koo xam ne ne sax moom yëgaloo ko ko waaye nag fi jamono toll boo ko ca diisoo waxtaan ci ak moom ba mu ne bëgg naa mu gën a baaxati de ndax jamono ji kilif téefu cent pour cent du wax ne kenn xamatu ko de waaye tamit ñu bëri ñakk nañ ko mun kon nag yow baay jooju nag ki sa doom ji ji jànq mosta nekk ci néegab sëy nga nekk fi di di jullit jàllal bi ko di góor boole koog am xel boole koog mësoor su boobaa yow dong dong dong Euh, yaa ko mën a mën a maye wala koo jox ndigal ne ko maye ko waaye keneen ku ko mën a maye ci mbedd mee ku mën a doon sëy nekkut fa ndax yow moomu yaay kilifaam su ko defee kon nag euh, maanaam